contrat bi dox ci diggante Senelec ak Akilee mi ngi woy di jur coow ci réew mi coordonnateur national bu mouvement alerte ne am na lu baree bari lu leerul ci contrat bi war a dox ci diiru fukki at. Akilee defarul compteur xamul compteur fekkewul fu ñuy defaree compteur xaalis boobu kan la Senelec bugg alal. moonte dey liggéeykatu Senelec yi boodu ci syndicat national des travailleurs de l'électricité du Sénégal ñoom ànd nañu ci tànneef bi am ci Akilee. bu fekkee ñëw mën na gën a yokk koom-koom bi Senelec xaar ci perte yi mu doon def dañu jàppale ne loolu lu baax la. ginnaaw liggéeykat yi club des investisseurs du Sénégal ñoom it akile la ñu jàppal tànk mouvement alerte di sampi laaj. les sénégalais moo ko moom te sénégalais boobu moom jàpp ni bu amee lëj-lëj ci contrat bi Abidjan dong lañ ko mun a xanaa loolu war na xel bu ñu doyloo Cheikh Sadibou Diop bile contrat dox ci diggante Senelec ak Akilee xaatim nañu ko te jaarul ci organe de contrôle ak régulation wu marché yi doy sëkk ci mouvement alerte ngir yóbbu miir yi ca OFNAC